lay bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon fan yi rek laa ko mere bi mu duggoo ci ay choses yoo xam ne waru cee dugg bëgg maa jaxaseeg waa waay waaw te man waxoon na fi ci boucher aussi vocal ci waaw waaw te man ñi muy wax noonu ñëpp kii sama doom la Boucher suma carrière la sama euh, ginnaaw yoo xam ñëpp xam nañ ko suma doom la sama ginnaaw la defee def nañ ñëpp def nañ dañoo xuloo dañoo jàppante. te te affaire yi affaire yi demeewul Boucher suma doom bu ma ko naree yéenee dara lu bon yàlla bu ma daan sama combat bi man uma xolu ki ñaan sama doom la biñ ci waxee ma génn leeral waxaatuma ci. Balla Gaye 2 mi muy wax bu subaa ëppoon de presse bi moo koy jiite suba. te wax ci Balla Gaye gi bëggantuwul ak Balla Gaye daf ko soxoree nangam nangam. suba mooy jiite open de presse bi lu fi am moom la. suba mooy ñëw ci open presse bi Cheikh Omar xam nga teel laay waxee. sama téléphone woo ko te suba mooy jiite open presse kon nga xam ne foofu dara xewu fa. kon di nga noppiloo ñu bari. non du du question noppiloo dama ni la xam nga jëluma sama téléphone woo ko wallaahi wala du ma bàyyi ma fenn taw suba mooy jiite open presse bi. kon kon mais waa Guédiawaye pourquoi waa Guédiawaye tamit ngeen yenn combat bëgg a def 100 pour 100 contre Reug Reug. mais Reug Reug kenn ku ne xam ne ni tey buntam mooy tegu ci Balla Gaye 2 Balla bu deful la tout tey nekk suma ginnaaw tey ma fereen Reug Reug moom après day amaat problème moo tax waaw moo ñuy def nii. ah ok Cheikh Omar ñoo ko déggandoo xam nga Reug Reug uppa jam na Elton hmm. Elton géej waaye dëkk da nga koy gëlëm wax su Balla Gaye toppul sama gannaaw ma fereen Reug Reug Reug la ci kawam la jëm. non loolu dëgg la. bikitu mbagg boo gis. xaw ma xànq boo gis boo xaree xol ba. magasin boo ko ubbee magasin la. Mm. léegi nag ñoom ñoom xam nañ loolu sax mbër mu ndaw moo gis mais man tey mbër yi may jàppale noonu la moo ko jàppalee bu feree ne woo mbër yee duñ agsi. mais kon mais kon est-ce que kon duñ duñ jox raison kon Reug rek mi gëm ni ko kon Balla Gaye moo nekk sa ginnaaw ci combat bi. non moom waxul ne moo nekk sama ginnaaw de. Mm. da doon jaxase bi maanaam man bi ma nee tey am na ñoo xam dañoo jug di fay pour guy gi daanu moom nag man xam nga ma mbër mu ni nan lay waxee ay mbër euh, nekk naan ay mbër yu nekk géewaay dañ ko fay di jaxase quoi te moom tudduma mbër beneen bi. moom li wax dafa ni li mu wax Balla Gaye dégg naa. voilà te loolu lool loolu amul solo loolu bi maanaam mm, boo fekkee da ngaa juum ci télé ñu corriger la bul waxaat waaw bul génn di wax noo ñu wax la leneen parce que li muy wax man. man xam naa ci moom leneen lu négatif loo xam ne du ma ko wax ci télé parce que làmb la doomu aadama la ko man doomu aadama la ko moom te ñun bu ñu yàqantee dañuy yàq suñu kon duñu yàqante kenn ku ne am nga lu négatif loo xam ne bañ nga doomu aadama gis ko waxuma sax suñu borom bañ nga doomu aadama gis ku ne xam nga sa bopp loo xam ne mooy loolu mais buñ toog ci télé di yàqante wala ci parce que naa ko loo xam ni bu waxaatee ma wax loo xam ni bu ko buy bëre sax du nekk léegi boo waxee léegi boo waxaatoon léegi nga wax dama ni xamal naa ko loo xam ne bu waxaatee li ma koy wax suy bëree sax du nekk dama koy gàttal rek ko ba wax naa du ma ci waxaat daal. salariñ jiin bismillahi ma dee ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba jiin booba tuuti ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari